tey nag di ci féggoo ak ay ndaanaan ndaanaan yoo xam ne Sénégal kenn dootu leen laajte tey nag soo leen gisee ki ma jàkkaarloo eh, xam ne dama dem ci li nga xamante ni moom moo di wàllu musique bi eh, muy Demba Guissé nekk koo xamante ni si Sénégal ñoo ko bëgg waaye tamit eh, te la muy yëngu di ca def liggéey bu am solo boo xamante ni si Sénégal yëpp kenn nattableetu ko ba tax na nag mu dëgmal bis bu rëy boo xamante ni saa yu dikkee rek Sénégal dañ koy bàyyi xel muy li nga xamante ni moom moo di anniversaire am Demba ginnaaw bu ma la nuyoo bàyyi la nga nuyoo mbokk internetu Dakar plus ci les salaamaaleykum Dakar plus ñu ngi leen di char mhm. di nuyu Fama ngi lay nuyu di mhm. nuyu ñu fi nekk ñëpp ci équipe bi caméraman et tout sax mhm. donc di rafetlu vraiment seen déplacement aussi. d'accord mu ngi char d'accord alors mu nekk lu am solo mais dem ba le 26 bi euh, comme ni nga koy defee rek chaque année di def li nga xamante ni moom moo di sa anniversaire naka nga koy waaja cette année ci. waaj ko rek comme d'habitude <laughs> ndax ren moom dafa spécial. dina laa koy def. d'accord. mu nekkatul comme Sorano yi mën a def mais mm-hmm. dina laa ko def. Mm-hmm. dina bi euh, donc c'est plus euh, moo gën a limité aussi. d'accord aussi mooy gën a organisé wu. Mm-hmm. ndax euh, boobu affaire de grand la quoi. d'accord d'accord nag doon neex am ambiance et tout ça mais des fois. da ngay changer tuuti. donc def euh, beneen façon. pour mhm. aussi ñeneen ñi gis seen bopp aussi. Mhm. Mhm. d' accord alors mu nekk lu am solo mais kan moo nekk sa ginnaaw di jàpp ci bis bi parce que bis bu mel noonu chaque année nga woote ko nekk na loo xamante ni si euh, lu lu ama am solo la ba tax xam naa ni du ñàkk di nga soxla ñoo xamante ni dinañ sa ginnaaw. man maa nekk sama ginnaaw. ah <laughs> yow kese. <laughs> man maa nekk sama ginnaaw. ok <laughs> yow kese yaa si yaa jàpp. waaw ah, man maa sama ginnaaw. waaw loolu mu yàgg na ci man ku ma xam-xam ne nekk damay dem samay propres moyens. Mhm. li may faral di wax rek je vole avec mes propres ailes. yàlla dimbali na ma ci loolu. Mhm. mais mais du ñàkk nag am benn ñaar ñoo xam ne à côté bolo yuy def rek ñu jàpp ci. Mhm. d'accord mais est-ce que yomb na yenn bés yi nga koy engagé di dem ak say propres moyens dina yomb trop. mës ta yomb de. d'accord mës parce que tey boo amee ginnaaw day gën a neex. courant de bras ñu def lépp waaye man nag lii yàgg na ci man. coono bi moom mos mosuma wàcc surtout bu may bu may defee événement. Mhm. nii la mos a day mhm. métti rek mais quand même ku métti góor da koy engagé. d' accord d' mhm. accord alors am sa doomu ndey Pendo mi ngi jàpp ci bis wala jàppagu ci fan la toll. Pendo de lu dul wax bu bari la si jàppee noonu. <laughs> Eh. ma jàppagu ci quoi mais nag moom. bo eh. chaque jour euh, dama naan euh, mu ngi sama côté quoi. te su ma si nekkee su nekkee sama côté moom du ma si jaaxle quoi. d'accord mm-hmm. alors mu nekk am solo mais comme tout ni nga ko waxee rek que li nga xamante ni moom moo di soirée bi ren euh, kii nga ko def galaa nga ko def lan moo waral innovation boobu da nga daaw gis sa bopp Sorano wala lan moo tax loolu. non damaa changé rek ah. lu ma def juróom benn yoon. bu juróom ñaari yoon jot. xam nga ni ko gisuloon sa bopp si si si première bi ngay ngay ngay ngay aju ngay ngay mhm, bàyyi mhm, mhm. d'accord donc gis naa sama man man maa changé formule bi rek pour dem xool diine mu nekk une première fois pour man wala affaire de grand bi ngay indi waaw mënut a ñàkk am ñoo xam ne aussi boo la woo ci diine moo leen di gënal. nga yóbbu leen Sorano ci rimbi rimbi gi. d'accord alors billets yi fan nga fan lañ ko mën a amee ak tamit moment bi. bon yi euh, ay table la. parce bëgguma jaay si jour boobu ticket. Mhm. parce que dama limité place yi. Mhm. nga limité place yi mënoo def billet yu ëpp. Mhm. da ngay def si nombre rek. bu ëppee rek après du la arrangé sinon ñeneen dañ la mere. ndax taabal yi moom dañ ko def pour toog bu nit ñëwee nag ba amul taabal mu war a taxaw day xaw a mitti. d'accord donc dama def nombre bi rek donc euh, bëgguma dépasser loolu. bëgguma dépasser mm-hmm. moo tax bëgguma wax sax ay point de vente nangam nangam yooyu quoi ok. Mm-hmm. moment bi kon am na gise ferme mën nañ ko xool. Ah, ah, wala des na ba léegi loolu kay moom xam nga boo waxee dem ba gisee. <laughs> boo demee dem ba gisee. waaw boo waxee gise ferme kay du bett kenn. <laughs> du bett kenn <laughs> dëgg la de. <laughs> d'accord alors mu nekk la am solo mais tamit est-ce que mën nañoo xaar sa mbokk artistes yi ñu ñëw sur seen woyandoo ak yow. ñoom ñëpp Wally Seck Sidi Diop ñoom ñëpp. Mhm. Wally Seck Sidi Diop Pape Diouf Youssou mhm. Ndour Maal Thione Seck ah ah ma naan Thione Seck ku bëgg a wala laa bëgg a wax. ah bi ma yóbbaale. donc euh, ak ñu bari bari Keba Seck. xam nga ñoom ñëpp parce que tey. tey ku wax. Euh, euh, euh, tey artistes yi ku wax tey Demba Guissé mhm. wax ngay artistes yi parce que samay xarit lañu. donc et je pense que loolu mooy loolu mooy kii bi quoi woo naa ñëpp ah ñëpp ñëpp dinañ ñëw. Mm. titi ku ne xam na ne titi mënuma def dara te duma ko woo. donc ak yooyu quoi donc mm-hmm. waaw loolu la daal. da nga dem ku ci nekk nga jox ko invitation wala danga nga kii nii rek wax ni boo. Mm, non ñun artistes duñ dem joxe ay invitation quand même. ñun dañuy wootante parce que ñuy mm-hmm. nawle lañu. téléphone. ok woote tel loolu mooy respect bi. Mhm. nga woote donc woote téléphone kii nga xam ne yëg nga ko. Mhm. am ñoo xam ne sax yow yow doo gisanteeg ñoom at mi yëpp. appel ngay def rek. Mhm. wax leen affaire bi. ñu déplacé ñu am ñoo xamante ne sax doon sax gis da ngeen da ngeen di woote jotoo nga bàyyi leen à vocal ñu ñëw yëg-yëg la. du question nag caaga yóbbu dugg fii génn fii protocole moom noonu noonu non. da ngay da nga koy woo téléphone sa la rek. chaque leen doon ren rek nga leen commencé di non xam nga ah, ah, anniversaire na mënoo ko def mënoo artiste yëpp nag moom. Mm-hmm. boo ko defee doo woy jour boobu noonu. d'accord <laughs> te nag wax dëgg yàlla nag bëgg lu neex nit nag du tax nag koo xam rek ci artiste nga bëgg ñu mënta ñàkk. Mm-hmm. ñu xaar ba beneen année. Mm-hmm. yaay d'accord alors ñi nga mos woo ñëpp mos nañu ñëw parce que suñu suñu suñu gisee sa yi jot a daal euh, gis ñu ci artistes yu bëri ku ci mel ne Sidi Diop. daaw ñëwoon na mais jotul sa egsi parce que si porte bi la yam ak yu mel noonu. waaw Sidi daaw dafa ñëw ba ci porte bi tombé mu jeex waaye am na beneen année bu mu ñëwoon. d'accord sama rakk la su ma ko yoree day euh, ñëw ndax sama rakk la suma xarit la. Mm-hmm. ku baax la aussi. Mm-hmm. Pape ji suma grand la. pap yàgg naa ñëw ñëw na ñëw na ñëwati bii passé ñeex sa ñëw na. Mm-hmm. donc euh, waale aussi mosoon naa ko benn année. xam naa dafa amoon empêchement aussi. mais bii di ñëw incha allah bi dana ñëw. Euh, ci lu ñu am ci moom. Kumba Gawlo Seck dana ñëw. Titi. dana ñëw dana ñëw kon bis ba dina dana ñëw. ñeneen ak ñeneen bëgguma lim ñëpp Kéba Seck dina ñëw. <laughs> ak ñeneen ñeneen bëgguma cité ah parce que am na ñu ma cité wul moo tax quoi. donc mais quand même pour rek wax la que ñëpp sumay xarit lañu te je pense ku ci am jot dina ñëw incha allah. Mm, mm, mm-hmm. d' accord alors mu nekkul am solo mais Demba dañu gis que Demba tournée yi dafa bëri trop au niveau international toujours Demba yaa ngi foofu Demba lan la. du dara damay liggéey rek de. Mm-hmm. d' ailleurs maa ngi nii xam naa gannaaw suba incha allah rabi maa Euh, mais juste pour trois jours rek quoi. dafa am benn euh, dîner bu fay def ak waa IBC mhm. ndax sa ambassadeur laa ci euh, IBC mhm. yoon fa programme bu rëy nag. donc dîner bi ma ko war a def. Mhm. incha allah rabbi le vingt janvier. et le 26 mooy sama anniversaire donc lu ma fa def rek sama pare du ma fa toogaat. doo fa toogaat damay bi. incha allah rabbi alors Demba ñu bëri dañuy wax ni que tournée bi li ko waral mooy Demba gisatul boppam Sénégal fii ci musique bi. est loolu noonu da koy. maa wax ñoom ñoo gisul seen bopp. Mm. maa ngi sant maa ngi cool. <laughs> ñoom ñu ngi gis seen bopp kay waaye maa seen bopp ñoom gis seen bopp. waaw hmm. maa ngi gis seen bopp baax a baax. li waral ñu koy wax ñu bari nee nañu ki nga xamante ne moom moo di Wally Sénégal fii dafa dafa fatt fépp ba yéen ñi nga xamante ne yéen yéen ci kaw nekk ay magam gis nga seen <laughs> bopp. Wally suñu frère la. yàlla wërsëgam la koy jox. Hmm, hmm, keneen nit yàlla wërs yàlla jox la sa wërsëg. Eh, Wally jàmbaar la. waaye du lekk lu dul wërsëgam. ok keneen aussi wërsëgam rek lay lekk. Mhm. donc loolu la quoi. Mhm. chaque jour nga gis fi programme boo xamante ni. Mhm. keneen a ko tëgg. d'accord wërsëgam la. gis fee keneen tëgg ko wërsëgam la. ok des nga gis waal tëgg fii wërsëgam la des nga gis kii. fa ngay xamee yàlla moom dafa yaatal. nga gis benn date ñëw. benn benn jour ñëw. yuusu tëgg fii. waal tëgg fii. Baaba Maal tëgg fee mhm. Kumba Gawlo tëgg fii mhm. Sidi tëgg fii Pape tëgg fi mhm. Demba Gise tëgg fee ñëpp seen nit fekk si la. ñëpp a fees xanaa kooko yàlla. waaw ah, kenn moom rabbi <laughs> sama waati kenn ah, moom. moo di sa anniversaire du ñu gis parfois ngay jël salle yu gën a mag yi muy li nga xamante moom moo di grand théâtre euh, Sorano ngay dem ak tey fi nga xamante ni moom moo di place du Souvenir. Sorano ak succès boole succès. ak succès waaw. Ah, mais grand théâtre kañ nga koy engagé. wala esplanade bi Sorano euh, Sorano ak succès ay grande salle la de. mais mais comme <laughs> waaw ah. comme grand théâtre ni mu mel nga xamante ni si esplanade bi dafa yaatu biir gi aussi dafa yaatu. ah da nga bëggoon ma jël esplanade. waaw ah, waaw waaw ba xam. ok yaakaar nga ne boo ko tëggee gars yi du ñu ñëw tamit. de de taxawal ngay la posé question rek mooy bàyyi ma tontu la. <laughs> waaw ñëw léegi jox ma beneen kii <laughs> eh? euh, jox ma beneen jox ma beneen artiste euh, beneen exemple ci beneen artiste yi léegi léegi ma jox ma jox tontu bi. Mm, mm, exemple comme. non jox ma beneen artiste indi beneen tur artiste rek. baraatise rek ku ci mel ni waaye mi ngi dem foofu ak ñeneen ci kii nga xamante moom suñu suñu papa yu suñu barki démb la fa jóge yooyu noonu. ok d' accord waaw ok léegi. Mm-hmm. est ce que forcément rek que artiste da war a foofu nga war a tëgg grand théâtre et tout ça. léegi question bi après après koy laaj ci nga wax Wally aussi lan moo tax tëggagoo si estatu Ablaye Wade bi. Mhm. loolu moom répondre na si. ah loolu si répondre parce que nee foofu accès bi moom moo nekk problème parce que Youssou bi mu ko tëggee. ok ku ne gis na ni am na ñoo xam ne bés set jot. waaw man nag man nag man nag tamit accès bi mooy sama problème ci grand la. Mhm, <coughs> sànq loo wax fii nii. kam moo nekk ci ginnaaw Demba Guissé. Mm-hmm, mm-hmm. Demba Guissé moo nekk ci ginnaaw. Mm-hmm. li tax mu nekk sama ginnaaw mooy li ma mën laa def. d'accord saal yi may dem nii. dama koy def fay ko. fay droit yi fay lépp yorelu kenn bor. grand théâtre moo gën a cher. droit yi foofu la gën a méttee dégg kenn jàppale ma ku dul sama bopp. donc rek su ma demoon Grand Théâtre tey. Mhm. lu may def tey ci Sorano bu dee ni 10 millions la pour pour organiser. Mhm. Grand Théâtre naa fa def 20 millions pour organiser yaa ngi dégg. gannaaw man maay def nag. Mhm. te bët moom du du du. du yoon waaye xam waaye xam euh, lu bopp attan dama yem fi nga xam ne wax su ma pare dinaa ci génn man. duma ci am bor kenn du ma toppee dara. ndax ñaari saali nag. am na différence ci prix bi. différence ci droit yi ngay fay. perception SODAV extra xëy na yooyu xamoo ko waaye ay droit mm, yoo war a fay autorisation avant ngay jouer. Mm, mm. donc loolu moo tax ma la nag comme accès boobu nag laa amagul ni Wally ñàkkee accès fële ne ni nii ba ne xëy na euh, accès pour jot salle benn gi man ah, accès boobu ma am bi bi ma ñàkk ci fii nii mooy accès pour que. amal sama bopp lépp defal ko sama bopp foofu parce que dafay diis ci man. lu nar a diis nag nar maa sonal ci organisation. ma dem fi nga xamante ne du a yomb. Mm-hmm. d' accord a dimbali ci yu bëri. waaw yow da ngay fexe nga wut sponsor. waaw incha allah am naa sponsor wala wala eh, kii. Eh, am naa sponsor li solal daal ak yére ñëpp. waaw waaw waaw xam nga man li ma solal nii xëy na xamoo kam ma ko solal. Ah. waaye soxla nga tey benn benn benn benn ndox. wala wala wala wala wala la kii téléphone. bu la accompagner sa émission te yaa ngi dégg. accès boobu moo facilul. yombul dama lay wax. Mhm. les grands théâtres nii. Mhm. ñi ngay tudd fii yëpp les artistes Wally Seck Pape Diouf su Ndour dañoo am sponsor yoo xam dañ leen di accompagner. Mhm, mën leen fayal lépp. d'accord dégg man nag awma boobu sponsor. d'accord ku amul sponsor bi nii da ngay yem ci ki nga xamante ni mën nga ko def te sans bor fekk la fa. moo tax dem fa yaa ngi dégg. Mhm. ki feesal Sorano. Mhm. ak Cices pendant sept ans. wax dëgg yàlla boo ci delloo fukki nit di nga def sa mhm. grand théâtre. dégg nga je pense que problème bi sax du ah, du du du du feesal bi. ah. ah euh, euh, rek pour def dara quoi. Mm-hmm. ok pour man du feesal beeg ñàkk feesal yaa ngi di ko ndax xëy na am na yeneen saal yu ëpp fii. Mm-hmm. ma di ko def fële ne muy doxe carrément. Mm-hmm. dégg donc sant naa yàlla ci loolu quoi. wax dëgg yàlla sponsor bokk na ci lu gën a tax nit ñi duñ ñeme organiser dara quoi. parce que làmb ji ngay gis ni millions ngi fay ay ñoom Modou Lo ñoom Balla gi yaa ngi dégg. la plupart sponsor officiel bi mooy génnee alal ju bari. fay làmb ji. boo gis seen yére yooyu ñu sol noonu. ay yére nangam ak yére bii yeeg yére bii yeeg yére yi ñu sol seen blouson yooyu noonu. sponsor baa nekk noonu. ay millions la fay. Mm, pour am ko euh, visibilité am am fay yaa dégg mm. comme ñun nag ñun daanaka euh, majeure partie ci artistes yi. Mm-hmm. sponsor du duñ leen accompagner sponsor yu mag yi fay ay millions. Mm-hmm. bariwul de. la plupart les sponsors yi fi nekk yi bari bari bari ay relation la. Mm-hmm. woykat bi mooy xamante ak borom produit bu wala borom entreprise ba mu sponsorisé ko yaa ngi dégg. Mm. waaye dem ba gis nga boo ak benn entreprise jékki mu ñëw nekk day accompagner si kiyam. Mm. c'est pas facile. moo tax kuy def defal li nga mën. man def li ma mën moo tax ma koy def chaque année aw ma ci bor. Mm, lu la de macha allah alors Demba lan mooy def secret Demba parce que dañu gis demb lu mu génne rek Sénégal yi dañ koy bëgg dañ koy consommer. damaa baax damaa baax rek. <laughs> rafet <laughs> xool lu ah, ma génne Sénégal yi bëgg ko eh, àdduna bi da ngay fexe wàcc mm-hmm. suñu borom yéegal la artiste boo gis ci àddina mm-hmm. boo wàccee rek mm-hmm. Sénégalais yéegal la waaye yàlla suñu borom jàpp say mbir mu yéeg parce que <coughs> rëy fuuy fuuy ak dàngiral ak yooyu amul chance ci kenn ku mën a nekk artiste boo gis ci àddina fi mu nekk nit ñoo ko fa yóbbu <coughs> excusez-moi dama xaw a tooy. <coughs> Mm-hmm, mm-hmm. mais quand même mais quand sant yàlla. <laughs> Mm-hmm. ba sénégalais yi bàyyi ma xel ci lépp lu may def. parce que nag euh, kenn neexalul kenn de. loo def moom. da ngay fexe rek ba am tuuti ñu la bëgg. boo ko amee baax na. ndaxte am na ñoo xam te ne mën nañoo génnee fii su ba ngoon jot kenn yëg ni génne nañu. je pense que su ma defee nag bu nit ñi di xalaat ni ki génne naa dara neex na leen sant yàlla. Mhm. Mhm. d'accord mais la plupart ci sa ay son dañu gis ni que mbëggeel Demba di ëpp lu muy woy. Hmm. pourquoi nga def choix bi foofu. léegi loo bëgg ma ma woy mbañeel. non non pas mbañeel mais am na ay thèmes de société ay genre. xam nañu xanaa dinañu si kii ma woy la société yow. non non <laughs> yow nga dégg société. <laughs> thème de société naa ko déglu kay. mo ah mooy lan. maanaam tey jii. yar leen seen <laughs> doom yar leen seen doom xale bu tollee si doom da ko war a jàngal. yaa ngi ah, ok <laughs> loolu mënuma kaa woyaat sax <laughs> mooy loolu. ok. thème. Mhm. wax. Mhm. xam Sénégal xam Sénégal dañoo neex. Ah, <laughs> xam boo woowee thème xam lu ñu lay wax. Ah. mais nice na wu mais mais mais bi am na solo ah. waaw nice na na mhm. foofu rek la ñuy yem. waaye jël sa morceau thème di ko jël wala di ko xewal nii. morceau thème bu xew dafa bariwul. Ah. ndax xam nga tax. Hmm. Euh, laaj na ma ko sànq émission bi ma nekkoon. mën mhm. euh, nga way thème ah. Mhm. Euh, dama ko bëgg ma dama bëgg thème. mais tout le temps su may woy tamit damay sóoraale aussi jeunes yi nga xamante ne vraiment boo defee dara ñu jël ko. Mhm. gis nga des fois. encouragement bu fekkoon saa bu nit encouragé rek. jël na sa sa sa vidéo bi mu publier ko ou tas ko ou yóbbu ko ci ku mu xam mu jàpp ci yaa ngi digg nga ne waaw mais courage ngay dégg. Eh, nice na waaye félicitation dégg su dem daal sama morceau bi mu mujj génne ah, moytul. Mhm. par lu am solo laa ci wax. ñu bëri nañu bind naan lii mooy way. Mhm. lii lii moom nangam sangam. Mhm. dégg mais foofu rek la yem. nga dégg. d'accord baax na trop. mais il faut ñu xam ne aussi technologie dafa avancé. dëgg euh, affaire dafa avancé léegi. am foofu boo fa tollee. foog nga bàyyi xel ñi nga xamante ne ñoo nekk ci yi. influence bu am solo la yor influence dafa am solo sànq laaj na ma ko dama léegi xanaa kon léegi da ngeen di bàyyi léegi seen woy nekk ay woykatu tiktok woykatu tiktok amul amul topp xale yi moo am li mm. ñuy def terewul nga am sa registre man fa am na fa ma nekk ñëpp xam nañ ma fa mm-hmm. sànq yaa ngi may wax sama tukki yooyu lan ma koy indi mm-hmm. mais sama musique bi may def mm-hmm. euh, ñenn ñi intéressé wu mu may génne feneen feneen léegi nag su ma amee leen loo xam te ni mën naa bégal nii di bégal a xale yi ñu naan diw fayul de. Mhm, diw dafa fekk siwul. fi monde bi toll léegi ci hmm. musique mu hmm. fekk si ñi koy déglu léegi. Hmm. mag ñi déglootuñu. ay mag ña ay nangam thèmes yi loolu déglootuñu. léegi boo seetee sax même dem ko doon baale ancien kat yi léegi sax adematuñu ah, dematuñu. ñi ñi màgg nañu léegi ñi voyagé nañu. ñi am nañu jëkkër ñi am nañu jabar ñi génn nañ si monde boobu ñu ngi fenn fee yaa ngi mhm. xale yi fi nekk di jóg nag ñoom ngay àndal ci li ñu bëgg nga defal leen ko pour que boo mënee nekk au diapason d'accord am mhm. solo macha allah alors sa clip bi ak Pendo parole yi am solo lool wéet gore wéet ku mel ni que loolu dafa xaw a raar trop ci li nga xamante ni moom waaw wéet gore wéetali ko gore woo lëgee nga am manoore mhm. ab sama ko woyoon ak tuuti mbay ak tuuti hmm, ñu nekkoon si Père Ousa génn père gi sa pen moo bindoon moo bindoon woy bi. père gi sa pen moo ñu ko jox Pendo mm-hmm. ok ñu koy nuyu baax a baax a baax. Mm-hmm. Euh, thème loolu mooy thème. Mm-hmm. ay dégg. et sénégalais nag moom. Euh, c' est vrai que des fois ñu utiliser thème waaye de mais ku nekk da koy utiliser ci ni mu ko neexee. ni mu ko neexee waaye ni mu ko mënee gaarawaale. ni mu ko mën a waxee tey ba ba ba ba. keneen gis ci boppam akum ko visé. ay ngi dégg. léegi nag. bu affaire tollee foofu léegi. da ngay indi thème. n'empêche que bàyyil xel ci ñi lay déglu. Mhm. parce que waxuma kenn bu muy bind mu bind tem waaye boo ko décentralisé. Mhm. Euh, nga nekk xale. Mhm. nga woyal xale yi waaye également nga woyal mag ñi xam dañuy déglu. bu bëggee génnee dara kon nga génne ñëpp ko déglu kay mais sóoraaleel xale yi. yi déglu di di tas morso yi. boo boo foo boo booy playback sax si fenn boo nee. boo nee xaa sax boo leen joxee micro bi ñu continuer la ko woyee la ko mais artiste bi nekk loolu la ñaan yàlla mm-hmm. Mm-hmm. yaa waaye nga bind tam bind ko mettil woyee ba ba yow boo taxawee day xool xam mm-hmm. léegi a bindum bi sax léegi a bareetul ñuy bind bind yu xóot yooyu ngay gis dégg nga fi ñu dàq woy ci Sénégal les Souleymane fay euh, doo gis ay ay ay ay ay xale di woy di woyandoo di woyantu ay ay ay woyam lu tax parce que woy wa am na niveau. bon musique la. dégg mais nekkul au diapason ci xale yi. da ngay déglu thème bi ne nga xam ne thème bi kii la mais xale yi duñ ko jël. dégg nga seen niveau et pourtant ñoom ñoom ndeysaan booy xool musique bi gën ci musique yi gën cee cool ñoom ñoo koy def. dëgg la waaw mais xale yi nag wax dëgg yàlla da leen di bàyyi xel. ñoom sax garaawul parce que ñoom xëy na ay mag lañu. Mhm. fi ñu nekk nekk nañ fa seen niveau ñu ngi fa nekk nekk li ñu nekk ba tey. Mhm. ñoom Youssou Ndour les Baaba tout ça mais ñun ñi nga xam ne ay jeunes lañu. Mhm. di di di nekk ci affaire di ànd ak xale yi di xam li xale yi bëgg dañ fi ñu toll nii ku def mag mag ñi fekk la waaye nag boo décentralisé kenn waxu la nga def yi fi xale def fi xale comme xelu xale quoi mais bëggal la xale yi nga bëggal mag ñi man fa laa toll maa ngi bëggal ñëpp voilà loolu am solo la alors du Titi ak Baaba gis ngay def duo ak yeneen artistes yi lu bon diw moom la rek. d'accord bi ma gisee ni Baaba Maal suma père suma xarit la. Mhm. ma def sama album. Mhm. ñu bokk ci woyandoo. Mhm. bi ma gisee Titi sama xarit la. ma def sama affaire xalaat ko ci. mu ñëw def participation mu neex. ma gis ni Pendo ñu bokk ndey ak baay. muy def mbir woo ma may def mbir woo ko ñu bokk defandoo ko quoi. affaire du soir rek suba suba mun naa woo Pape Diouf parce que naa ak Pape Diouf benn affaire. mun naa woo suba Pape Diouf. nga ne suba mën naa woo waale wala Sidi wala même kenn keneen ma woo ko mu déplacé ñëw. Mhm. Mhm. Mhm. d' accord alors lu am solo la mais tamit dañu gis que ki nga xamante ni moom moo di Demba euh, duñ ko gis ci soirée yi yenn saa yi comme ki nga xamante ni moo di Pape Diouf dina tëgg euh, wala sax Waly Baara di wala ki nga xamante ni moom moo di Sidi Diop Vogue nga nga débarqué sur scène wala dara dugg ay Baara Mondi ay Vogue yooyu. Ah, duñ ko gis daal lu bëri lan la. bariwul nag. yow sama gàllaaj la. ah. la ci man. gàllaaj la. doo xam nga ay dem ay wër ay baaram taxaw ci ay porte ak di taxaw di kii di daal loxo allo ak joxe mi yooyu vraiment nelaw daf ma ko gënal. Ah. xam nga des fois. Mm-hmm. Euh, am na ñu bari ñu ñuy wax ñuy wax ne dañ leen téye ci soire yi. Mm-hmm. ñoo def leen téye. Mm. mës ngaa gis ku ku ku toog sa buntu kër wala ku tëdd sa kawlal ñu fekk la fa téye la. déedéet parce nga ko gis. kuy nelaw ñu la kaay doo fi nelawee xëcc la. <laughs> déedéet loolu amul da ngaa sol sa dàll nga dem ci soirée. Mm-hmm. te artistes yi. Mm-hmm. dañoo am seen programme. Mm-hmm. boo ñëwee ci seen kaw seen bëgg a yéeg. il faut na nga nekk invité bu ñi xam ne invité nga. staff bi xam ko. musicien ba xam ko ba boo egsee dañ lay xalal nga dugg. waaye nag boo bëggee jëmet directement rek dem fekk artiste bi teg na programme am. Hmm. bu ñu la téewee da ngay mere artiste bi. fekk yaa yëgluwul yaa yëgluwul avant. Hmm. man euh, dem soirée wax dëgg yàlla. Hmm. Euh, la plupart su ma demee damay nelaw foofu. nelaw ci tàmm ma ko waaw. dem soirée toog nii rek pour assister soirée vraiment nit yi di woy ngay xaar ak yooyu. xam xam nga lu bari xam nga lu bari lu tax lu ma bëgg dem soirée ma wax la ko tey. man des fois dama bëgg dem soirée pour seetaan. waaye boo demee soirée seetaan yi am na artiste bu ma si mere ba tey du wax ak man. Hmm, si loolu noonu. waaw artiste Haalpulaar la. Hmm, bëgguma cité la dégg nga ok bëgguma cité yaa dégg ba fii may wax ak yow nii hmm. du wax ak man ça fait des années et des années parce que nee na dama nee na dafa def soirée am pentola ma ñëw ba foofu te xamul soirée xam xam pentola restaurant reerukaay la man dama ñëw juste pour reer ànd ak nit ñi reer nii reer jékki-jékki rek mu woy ba yàgg ne waaw maa ngi woo sama rakk Demba Guissé ak yooyu. Mm-hmm. maa ngi reer mu ne ko amee grand jégal ba ko rek jégal ba ko tey mu ñu pour reer maa ngi lay seetaan si affaire yaa ngi nice. d'accord bat fii may wax yooyu fii may wax yooyu nii du wax ak man. Mm-hmm. ne loolu moo ko metti xam xam nga mu la man mm-hmm. ñëw di reer. maa ngi da nga war a kontaan ni que non vraiment nit ki am na compréhension. te avant soirée reer ma ah, yóbbu woon. ah man est-ce que man su ma demee soirée forcément dama war a way non non pourquoi soirée man may ah pourquoi artiste bi du solo ba jekk mu dem wax waxuma mu dagg bii parce que artiste la mu dem. ñu ubbil ko mu dem yéeg si VIP bi ba toog. seetaan nawleem pourquoi forcément dafa war a way. des fois ñaari affaire moom am ne des fois nga way. nga ñëw ñu ne sa waay dafa bëgg micro wala ñu jéem laa kale. des fois nga ñàkk way ñu ne sa waay dafa soof léegi lan ngay def toog sa kër. des fois dafay dafay man daal man daal vraiment daal man. Mm-hmm. di wër bàyyi ba une heure du matin jot deux heures du matin jot ma sangu ba set ah solu bàyyi sama jabar di nelaw ak samay doom ma yot ndànk génn dugg sama oto taal sama oto dem ba biir almadi loo fay wut damay dem pour bëf. Mm-hmm. pour ñu jox ma micro ma woy ni ñaari baat cinq sa waaye après ma ñëwaat dem tëdd nii. sincèrement nag nelaw moom ko gënal. nelaw moo la ko gënal d' accord ñi nga xamante ne dañuy dañ koy def mais parfois dañ leen humilier di nangu ay micro sax Sénégal yi ñëpp di ci teg seen bët. Mm. acte yu mel noonu naka la lay def. Eh, laay wallaay kenn mosuma humilier. Mm-hmm. kenn mosa nangu micro. ndax nangu micro newul ci man sax man. maanaam xool ma nii rek nangu sa micro newul ci man. d'accord tu comprends. Mhm. nu la uudee gisee nit boo lambee. Mhm. ku tëgg rek nga dem. Mhm. bu kaña yi dee dee dee yëngal sa buntu kër sax nga génn nga ne xaaral nga xool kaña yi di yëngal sa buntu kër gi. <laughs> bu yàggee dañ lay yàpp. gis nga nit da ngay diiñ tuuti. programme boo cay dem nanga nekk nit gi buy raar trop. ci programme. am na artistes yoo xam xamante ni dañ ñu ngi Sénégal doo leen gis mukk ñuy wër fu nekk ñu taxaw fa di di di woy dégg mm. mais artistes yoo xam xamante chaque soirée boo dem rek salaamaaleykum rek fekk leen fa ñuy laaj micro mais bu yàggee dañ lay téye. dëgg la maa ngi nettali keroog <laughs> soo ah, keroog xam nga xam Sénégal dañu dafa am benn grand. Mm-hmm. dana ko waxaat benn histoire la benn grand bu demoon benn soirée benn artistes yi nekk fii. artistes yi nekk fii ñu leen. ñu leen tudd. Mm-hmm. grand bi dafa jógee fee. déplacé ñëw fii. dafa am fu mu jógee ci soirée dem soirée. déedéet dafa jógee këram. yéeg ni diw mu ngi tëgg fii. benn grand dafa jógee fee yéeg ni artiste bi mu ngi tëgg fii. mu dem ci programme ba. mu dem taxaw nii di xaar artiste bi woo ko. d'accord. Euh, euh, visibilité ko. Hmm? ne ne ko doo yëg hmm. xaaral xaaral xaaral. mu taxaw taxaw taxaw taxaw taxaw ba sonn ba soire ba jeex. kenn woowu ko kenn woowu ko. artiste ba wàcc. ñu ngi ko i mais grand. Hmm? gars yi dañu laa téye non grand gars yi déconné nañu ah pourquoi bàyyiwuñu la nga yéeg ñëw ak yooyu. <laughs> grand bi ne ko ah man kay yi dañoo ma téye depuis sànq ba tey mu ne yi gars yi non grand oh, ma metti quoi. xam nga ne ne ko mais maa ngi jégalu ah. Mhm. romb grand bi. romb grand bi deux minutes rek vigile yi. Mhm. vigile yi yi yi newoon foofu. ñoo ne grand bi ko ñoo ne grand. Mhm. mu ngi nii di dem kii dem nii artiste bi dem nii moo ñu nañ la téye. Hmm? moo ñu wax bul yéeg. mais loolu moom noo ko mën a. que dégg nga ma hmm, moo ñu wax bul téye ba pare ñëw naan la ay grand foo nekkoon lu tax gars yi bàyyiwuñ la. Hmm. loolu hypocrisie la. xam naa artiste bi. xam naa ki mu ko def. waaye léegi yooyu moom bu jaree yooyu yëpp doo toog sa kër. looy wër. te mun na yàq seen artiste bu ne nga salaamaaleykum ay micro loolu. te artiste fois mu téye la ci kaw seen mm-hmm. nga defa di nuyu musicien jaay faay borom bi jaay faay <laughs> parce que da nga fa yàgg. dañ lay xaarloo. artiste dañu doy waar de. Mm-hmm. doy waar des fois des fois dañu la téye kaw seen bi ba nga yaakaar ni que gejj nga bu ñu weer foofu. ah pop pop. kon parfois li nga xamante ne dañ koy affiché mooy moom mooy bëggante bi su ma déggee lu mel ni day mel ni que bëggante bi. bon man nag man mën naa ne man ñëpp samay xarit lañu. Hmm, hmm, hmm. man ñëpp ma bëgg ñëpp ma bëgg. d'accord. ba ma bëgg parce que nag lamb ma ci seeni programme aussi. Mm-hmm. man ma gisee tey programme. Mm. nga toogaat at doo ma gis. parce que même sama xarit yi sax ñu ma xamante ni sama xarit la ñu. Mm-hmm. titi sama xarit la. bu baax. Mm-hmm. je pense que gis naa soirée ce que matul ñaa ñaari at à euh, euh, mu tëggaloon ñoom Alima ñoon bi passé ah, fii nii Sorano ok titi est que du woon euh, fële Saaraba. Mm. Saaraba laa gëjoon soirée titi. donc man àdduna noonu laay doxalee même sama xarit nga même Baaba Maal bi nekk sama père. Mm-hmm. mën naa tëgg lu mat un an du dem ci soirée ba man man ma ma man man maay doxalee noonu. ñu baax lañ dañ maa bëgg trop mais man maa bëgg man man maa man maa choisir. Mm-hmm. di toog sama kër. Mm-hmm. di def li ma ëppal importance. parce que artiste. Mm-hmm. del raar tuuti ci bët nit ñi ci programme yi. Mm-hmm. artiste bu la bàyyi tey nga ñëw yéeg. nu mu dee jox la micro nga woy suba nga ñëwaat nii gannaaw suba gannaaw suba dina ne yi. Mm-hmm. ko defee yow yow yow yow moom du la téye par par mm-hmm, mm-hmm. la ngay kii waa <laughs> fekk sa waay. dañoo <laughs> li nga ni moom moo di showbiz bi moment bi mu toll <coughs> ah, yëngu na te pare di ci ëpp tamit mooy que parfois da nga gis artiste boo xamante ni dafay bëgg a génne dara bëgg a génne fake news boo xamante sax du am benn rapport ak li nga xamante moom la war a génne coow li gën a bëri ci lu ba showbiz. ku bëgg a def fake news daal mën nga koo def lu la ci fekk mën nga koo ji jël. waaw parce que euh, des fois mën naa mooy. mën mm-hmm. naa cuul. Mm-hmm. nga génne nga génne ko far affaire ba tàgga tembe. waaw mu yem fa. Mm-hmm. Euh, sa image jaar fa yàqu. wala ñu ngi am ba bët bu ñu lay xoolee bu ñu la musul xoolee. moo tax c'est très important des fois kuy def ay buzz nga sóoraale. waaw parce que du yàgg. léegi sax ni les Sénégalais yi ah dofuñu ah. lu ndaw lu sax boo ko defee rek rapidement rek da ngay gis ñi la ñi la ñi la ñi la gars yi buzz buzz lay créé. buzz lay créé. moo tax parfois bu nekkee dëgg sax duñ ko bàyyi xel. Mhm. loolu des fois sax waaw nga nekk nga def dëgg après duñ ko bàyyi xel parce que tout le temps rek loolu la ñu naxee nit ñi. loolu la gis d'accord. Mhm. Mhm. mu nekk lu am solo mais tamit li nga xamante ni moom moo di euh, li nga xamante ni moom moo di avant ñu dugg ci coow sax dañ lay laaj naka nga gisee terrain yi nga xamante ni si Wally Seck may na ko waa Ramadane naka nga gisee loolu acte boobu noonu. terrain yi. man damaa ngi xaar sama terrain man mi. xaw ma ko mm. moom terrain yi Wally Seck ko moom. Hmm? u moomu ko. Mhm. waaye man moom. Mhm. Euh, maa ngi koy gis nii si internet bi rek. dama ma koy teeree. Mhm, comme nag mënuma ci sori parce que man. nekkuma trop. des fois nga invité artiste mu ne la. gisuma ko gis naa lépp. gis yi nga laaj nii. ak bëgg laaj nii. xam naa lépp gis naa lépp. waaye dafa nekk lu ma lu ma intéressé. d'accord ci loolu. loo gis net bi gis naa ko. loo ma wax nii. su ma waxee rek bu ma waxee la yàlla rek yëg naa ko. ni ma amee Instagram TikTok ak yooyu noonu nga ko amee noonu laa ko amee gis naa lépp. Mhm. tey jii information may la yëpp gis naa yëpp. gis naa fi ñuy génnee terrain gis naa fi ñuy waxee démentir gis naa fi ñuy appelé nangam gis naa fi ñuy woowee borom terrain ma gis naa bi Omaro di wax gis naa bi keneen kii di wax ki ne suba te gis naa yëpp mhm. mais intéressé wu ma. parce que du ma ci débat am amul ma njëriñ. d' accord mais en tant que koo xamante ni si da nga yëngu ci musique parce que yéen yéen yéen a bokk li nga xamante ni moom moo di terrain boobu noonu maanaam musique bi euh, bu ñu demee ba ñi nga xamante ñoom ñoo di waa waa waa waa Sidi Diop dem foofu di démentir di filmer ay vidéo di ko génne est ce jar na ko ci Sénégal moment bi. est ce que doo woo waa nga wax ak ñoom. direct non non xam nga bu ñu jàkkaarloo tamit dañ dañ dañ la ci laajte rek ñooñu moom dinaa leen woo dinañu amal ah, jotaay da fexe woo kii kan la barito la barito waaye da ngay woo <laughs> barito li nga may laaj question bi nii wóolu mhm. wóolu barito mu tontu si mais en tant que musicien rek koo xamante ni sénégalais nga naka a laa a def parce que ma yoon new ci man du ma moom ma teere mayewu ma jënduma foofu mhm. kay donc daal moom gis barito mbaa nga woo Sidi mbaa nga woo Omaro mbaa nga woo Baye Sall wala mbaa nga woo ñeneen ci ci ci ci ci yi nekk ma fa xam laa bëgg ñoom daal yàlla def jàmm ñi jiboo nekk si jàmmoo daal di ñu rafetal àdduna amul solo yii yëpp dafay jàll waaye d'accord alors Sénégal yàqante bi nga xamante ni dañ ko fee nemmeeku waxal nit ki lu dul dëgg coow li bëri ku nekk di yàq sa moroom naka nga gisee actu mel xam nga yàq moom. Mhm. ki yàq moom yàlla da ko def moom euh, yàlla da ko sàkk moom moom mu ne moom day ñëw rek pour yàq. Mhm. ki yàq bàyyi ko rek ki yàq moom mënut te fexe fexe fexe fexe fexe fexe ba yàq lépp moom kat day yàq li mu mën a mën a yàq rek leneen li yàlla tuddul li mën na koo yàq. Mhm. du ko mës a yàq. ku yàq nit moom. soraale suba rek xanaa xamoo yàlla gëmul nelawul. lépp loo yàq rek. ci sa bonu bopp rek yàlla mën na laa yàqal lu ëpp li nga yàqoon. moo tax euh, man pour man kooku dama koy yër du ma ko yar du ma ko yëram. Hmm. parce que yàlla moom dafa juste quoi. Hmm, hmm. d' accord bi dafa dem ba ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di euh, musiciens yi sax dañ leen di waxal loo xamante ni si parfois nit ñi dañ naan du dëgg euh, gis nañ fi Wally Seck démb ko ni ko ami la yaa da koo takk takk suuf ak noonu genre yu mel noonu soo ko dee dégg nan nan la lay def. waaw nag il est toujours calme ah. moom lu coow li bari bari rek. moom mu ngi calme quoi. d' accord musulman la. bu ko bu yàlla dogalee ni dafa war a takk. Mhm. mais kenn mënu si dara. musulman la. Mhm. lan moo xew. Mhm. problème waaw ah, Sadio Mané mi takk barki dem bu ko neexoon bii si mu takkaat beneen encore. lan moo xew. dara waaw. Ah. Aziz Ndiaye mi fi takkee lu ñu fay wax coow yu bare bare bare jooju waaw mais pourtant <laughs> euh, euh, dafa jot rek mu takk lan moo xew. nañu bàyyi wax yu sew yooyu ñuy wax te ñuy wax lu ëpp am solo xam Sénégal leen gën a tàrrel bokk na ci lijjanti affaire jàmbur yu ñàkk fayda yoo xam ne ay waaw diw takk na ñaareel waale amul droit takk ñaareel mhm. lan moo bu ko neexee waal takk euh, benn mhm. takkaat benn takkaat benn ba mu de ba mu mat ñeent mhm. ndax doomu aadama la du lu bon donc yooyu ñuy wax yooyu c'est pas important. Mmh, mmh, mmh. d'accord ku yàlla dogal mu am rek mu am xam ma daal man daal vraiment j'aime bien. Euh, ni muy calmer noonu bañ a wax ci détail yooyu quoi. le fait que mu mu maye patt bi. patt bi c'est important ma noonu laa mel. ma tontu. d'accord ma ko may nit sax. ok alors Sadio Mané tam gis nga mariage am ni mu mel jabaram de muuru critères yi. Sadio Mané dama koy féliciter nit ñi naan fi ne nii jur na coow sax ci ñi nga. xam ne jigéen ñi Sadio Mané Sadio Sadio la. Sadio Wally la ok. est ce que Aziz Ndiaye dafa ñëw yéegal cap bi. Mm, mm, mm. Sadio Wally sa Sadio ñëw wàcce ko <laughs> xam nga xam nga bi Aziz ñëwee. Uh-huh. gars dañ ne borom doole xamul ndànk. Aziz ñëw. Mm-hmm. takk xale bu baax. teral ko. Mm-hmm. ni góor war a def jigéen. dëgg képp ku ku baax rek da ci kontaan. Mm-hmm, mu koy félicité. Euh, euh, en célibataire yi xaw dukkure yi mel ni man. waaw waaw dukkure waaw mooy dukkure. waaw ñoom dañoo ragal. <laughs> ñoom ñu ne ay waa ñun Aziz kii nañu rek ndax Aziz doole gi mu àndee. Mhm. doole gi mu ñëwee nii ci xale bi nii vraiment daal. vraiment daal waaw ñun fan lañ jëm <laughs> dégg nga Sadio Mané ñëw na leen. <laughs> Mhm. Euh, euh, euh, am naa doole trop waaye mun naa ne woon yoon bi. Mhm, dem takk moom it keneen koo xam ni vraiment moom it. feeñul fenn. génnul fenn. Ah. Euh, wanewul lenn maanaam pour maanaam maanaam li li Sadio Mané wane. dafa wane ne que même 200000 francs mun nga takk. waaw ah ah. donc c' est très important. xam nga Aziz Ndiaye yàlla na ko yàlla defal jàmm. ku baax la takk xale bu yaru xale bu mm-hmm. dal bu ñëw bu xale yi bu ñëpp bëgg benn seede bi. Mm-hmm. mais baax na. Mm-hmm. Euh, euh, comme du kuré yi dañoo xawoon ragal. ne waaw Aziz wu Aziz dafa ñëw ak doole. Uh-huh. xam nga Sadio Mané ñoo ne mais loolu garaawul. Ah léegi yow 100000 francs sax mën ngaa takk. ngaa takk ndax boo xoolee boo xoolee ki Sadio takk nii. Uh-huh. wax dëgg yàlla dangay wóor ni yow. Uh-huh. ba bu dee ni ci yére. basé wu ko ci yére bu seer. basé ko ci ay or basé wu ko ci dara dara dara xam da lay wóor ni yow lii boo ko calculé mën na sax bañ a egg 200000 euh, francs. dégg donc loolu et pourtant Sadio mën na ko am na ko. waaye dafa jàngale rek wax ne loo am rek mën ngaa takk soxna. Mm-hmm. donc gis nga. d'accord lii mm-hmm. Mm-hmm. na solo mais kan bi ñëw na te dañu war a daje suñu mbokk Gambien waa Gambie dama leen bugg a. ah waa noonu suñuy xarit lañu. <laughs> Sénégal. ak Gambie. benn la. nañu bàyyi xel lool. te sax xam nga ni. Euh, Sénégal ak Gambie dafa mel ni ñoo bokk ndey ak baay. dara xaju fa lu dul jàmm ak salaam. te dinaa la wax dara de. Mhm. Gambien gën a baax ci àddina. Mhm. barki salaatul xam naa dem naa. Gambien gën a gore ci mhm, àddina. Gambien gën a baax ci àddina. Gambien gën a xam. teraanga ci àddina Gambien ñoo gën a maandu ci àddina Gambien ñoo gën a am respect ci àddina. man Demba Guissé maa la ko wax. ñu baax la ñu. ñu man am naa ci xarit yoo xamante ni kenn mënu ko compter. kenn gënu leen ci àddina. waaw waa dafa am xëy na xëy na xëy na xëy na xëy ñi des fois ay football bu ñëwee dañu bëgg a dugal leneen mais nañu fàttali ne que teraanga rek mu dox suñu diggante. maa ngi profité du nuyu euh, jaawara. Mm-hmm. jaawara di ko. nga ne ma moom jaawara moom sama sama jaawara la. moom aussi gambien la mais mm-hmm. kenn gënu ko ci àddina. macha allah ñoom noonu la mel dañoo mm-hmm. baax yaru. jaawara du jëw jaawara du wax lu nit lu bon jaawara booy wax ci moom sax booy booy wax ci keneen sax. Mhm. du bëgg avance ci loolu. waaw da lay zappe moom day bëgg tout le temps rek wax ci ambiance jàmm ak salaam kafre. Mhm. xam te Gambien yëpp noonu la ñu mel. am naa si ñu bari ñu ma mënul lim mhm. Mama Sira. Hmm, Mama Sira bu bu Amérique Mama Sira moom ku ne xam na ne aussi nit bu diiñ la une grande dame. nit ku baax ku dal. te gambien la ñoom tamit. Hmm. Ah, maanaam amuñu amuñu jotu yàq nit amuñu jotu euh, di di di di di def nit lu leen metti hmm, hmm. ñoom tout le temps nekk ñu ngi seen liggéey nekk seen affaire et tout ça quoi. ñoom daal vraiment dañoo baax ah. moo tax Sénégal Gambie moom ah. man nag Gambie laa euh, euh, Gambie ñoo samay xarit. Mm. c'est vrai que nag je bëgg naa sénégalais am ndam. jël ah, coupe d'Afrique beeg yooyu <laughs> xam nga. Ah, ah. waaye bu ñu demee bu ñu demee tam mu Gambie final aussi. Mm. amul problème dem ba demi final euh, ñu dem ba ba tiro bi. xam nga xam nga après à Sénégal jël coupe bu mag bi jox beneen Gambie Gambie beneen coupe bi. loolu tamit lépp teraanga la. waaw teraanga ci la eh, bokk de. Eh, eh. macha waxtaan bi neex na am na solo mais à <coughs> part yi nga xamante ni moom moo di anniversaire bi projet yi yu demba. fan la projet yi après demain incha allah rabbi maa ngi IBC Sika maa ngi France. benn mm, programme bu rey waxoon naa ko may nuyu vraiment le président Badji. mi nga xamante ni ku baax la aussi vraiment. sunu programme bi ñu fa war a def. donc moom moo ci nekk. Euh, le président. donc association IBC Sika. Mhm. donc euh, di wax ci économie di wax ci social. di wax ci lépp loo xamante ni clandestin di wax ci lépp loo xamante ni mooy mooy mooy mooy mooy mooy promouvoir Afrique. lépp lépp lu jëmal Afrique ci kanam. Mm-hmm. association boobu la man ambassadeur laa ci muy IBC Sika. donc di nuyu aussi Dorine muy Aïcha madame mm-hmm. Diallo. Mm-hmm. donc di nuy ñëpp ñu nekk euh, France di wax nag nañ ma xaar. le 20. janvier incha allah bi diine bi mën naa ko war a def en live. incha allah rabbi. d' accord alors album Demba Guissé fan la tollu moment bi mun nañ xaar. bu album Demba Guissé nag je pense pas maa ngi koy wax euh, sànq si émission bu ma jógee. Mm-hmm. album moom. ma mm. ma bàyyi may single rek sinon album ma def aussi du nekk album mbalax yi ma defoon parce que album dafa metti d'accord waaye metti dama ko defoon rek juste pour am carte ci musique bi. Mm-hmm, mm-hmm. mais du woon juste pour jaay ko yooyu ko léegi album jaay album fii ci réew mi fii. Mm, yombul yombul de. ak piraterie beeg yooyu. whatsapp whatsapp bi si gën a gaaw. Hmm, waaye bu su ma génnee sama album def ko dix titres. Hmm. nga toog fa nga toog rek man la faax. Hmm. ah kii album Demba Guissé baa ngi nii envoyé la ko yëpp par audio. nga am morceau yëpp disque bi est jar na ngay a fële. wax naa ko sànq si émission ba léegi production yombatul. Talla nekkatu fi mu ngi ci yeneen Omar Gadiaga nekkatu fi mu ngi ci yeneen waaye léegi Bouba Ndour amatul jot man Matar Diop suba teel mu ngi ci ay projet yeneen ak yeneen donc tey boo xaaree ku lay produire ci àddina defal say single yu baax marqué sa présence ci réew mi doxalal Sénégal jëm macha allah dem mm-hmm. waxtaan bi neex na trop kontaan naa ci aussi nga tàggu mbokk kontaan nañu kontaan nañu faa yàlla na sa jàmm yàgg <laughs> amiin merci donc kontaan nañu mm-hmm. donc na seen jàmm yàgg di wax daal yàlla seen jàmm yàgg. <laughs> waaw mot de la fin moom. Mhm. fin. fin d' accord kon alors kon sant ngërëm ñeen na la di kontaan saa su nekk rek ci li nga xamante ni moom mooy disponibilité bi nga ñu may waxtaan bi neex na et puis am na solo macha allah foog naa ku ko seetaan tamit dina si jariñu di gërëm également mbokk internetu Dakar Plus yi nga xamante ni ñoo ñu doon topp boobu ba léegi Ibrahima mi ma àndaloon ci caméra bi nee naa ko moom.